abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim jërë ngeen jëf ak tàggatim bi am na ci dialogue national bi l'observateur ne ci dialogue politique bi fa yëf ya tàggee ponk yi doon waxtaane démb ñi séq commission politique bi amuñu ci déggoo bokkook Macky Sall ci élection présidentielle yi ak bu Khalifa Sall ak bu Karim Wade journal bi nee nañu ci fii fa la gaañi giito Sud Quotidien bind na dialogue politique bi dafa tëju ma nga tëjoo ca coowal candidature bu Macky Sall bi bu Khalifa Sall bi ak bu Karim Wade yuy wax ci nan la ñu mën a dugalaatee nit ku ñu xas raje ci liste électorale bu fekkee ay daan dafa jóge ci justice bi tege ci kaw maanaam ay condamnation acteurs yi séq commission bi journal bi ne nañu bëgg nañu it mbiri grâce présidentielle ñu dugal ko ci am na commission technique bu ca war a liggéey tey ji la ñuy liggéey nag bu sottee journal bi gis na ne du jur jàmm ci Ousmane Sonko ak partem bi di Pastef sursoi nañu ca seen dajam démb ma ñi fare ci opposition wi ndax loolee du débat lijjanti nañu ko ba nuppi société civile bi ñoom jàpp ne warta conseil constitutionnel moo ci mën a wax lu leer paaka kenn du ko jiitu ci mbaram ci foofee waa société civile gi taxaw sursoi nee nañu majorité présidentielle bi te fa ñu taxaw ñi séq waxtaan wi juboo nañu démb ci dugal mbirum grâce présidentielle ci code bi ngir mën a may ñi ñàkk seen éligibilité ndax yi problème yu ñu am ak justice bi ñu mën a bokk ci élection présidentielle yi président de la république di njiitu réew moom la réew mi quotidien xëye moom Macky Sall ñu bari li ñu bëgg xam moo di nee bu ñu paree ci dialogue bi le 25 dana def ab discours à la nation le 26 lan la fas yéene wax ñu koy wax ba di ñu wax ne la mu fas yéene wax ca message à la nation ba moo di résultat yi tikkee ci dialogue bi fa la yam waaye mbiri candidature ndax day bokk ci élection yi am déet loolee moom ci weeru août ca la ciy gindi peuple bi dialogue du peuple taxaw na vox populi nañu kuréel gi di F24 ñoo ko teg démb la ñu ko lancé Mamadou Mbodj ak i gaayam li ñu bëgg moo di tënke ca waxtaan wa ab mémorandum boo xam ne nee nañu kuy jiite ci réew mi dafay bokk ci li ngay sukkandiku ngir yore ko Sénégal journal l'info bind ne waa F24 ñoo nga ca door nañu démb wu ñu tuddee dialogue du peuple ko boole ceekit woote mobilisation mobilisation bu mag fukki fan ak ñeent ci weeru sulet ngir ñaawlu kumba am nday kumba ñàkk nday gi ñu ne dafa am ci justice réew mi waaye sa bëgg xeex ba waxi troisième candidature bu Macky Sall ñu bañ koo jëmee kaw bés bi le jour ne ko du loolee rek la waa F24 nas ne bu weesoo li ñu bëgg a ci doxinu justice bi bu weesoo li ñu bëgg a ci troisième candidature bu Macky démb ba def lancement dialogue du peuple bi wax nañu ci signal bu télévision banque tëbul blocus bi ca la ñu taxaw le quotidien dañu xamal ne waaye yeewi askan wi nee nañu bu ñu ne tabaski gi des na ñeenti fan danañu dem ci cité góor gi ngir yeewi Ousmane Sonko ma ñu fa ndar kàpp maître Ngagne ma ñu affecté yóbbu ko ci tribunal bu Tamba te mu jàpp ne dañ ko singilé jàppe ko sanction Arona Sarr xëy na di ci indi ay leeral Arona Sarr mooy directeur promotion bonne gouvernance ci ministère de la justice li mu ci wax mi ngi ko wax ci journal La Tribune pil yéene kay bi Arouna saar nee na maître Ngagne Demba Touré ni mu doxalee dul xel nangu ci état de droit li mu wax ci affectation bi mu ne ay kàddu la yu irresponsable wax la ju tegawul fenn yu waroo lool ak li éthique bu métier bi santaane affecté gi ñu ko affecté njëkkewul ci moom te du mujjee ci moom ne ko xam administration ak ni muy doxee xam ne affectation da caa bokk Arouna Sarr ni nit ki dafay xam li mu bëgg ab auxiliaire de justice buy soog a pare formation ñu mute ko ci région bu nekk ci réew mi bu ci ay wax amee rek du yoon ndax at mi yépp yàlla sàkk ñu gis fi ay autorité yu bokk ci commandement territorial bi ñu leen di affecté te coow du jëpp coow dina jëpp ci mbiri Baytula l'observateur nañu Baytula Omar Sané mooy turam dëgg-dëgg mooy ancien militaire gambien bi ñu jàppoon fële ca Bignona bésu fukki fan ci weeru juin ci la ko jàpp démb la ko gendarme mooy section recherche bu Colobane defere li ñu koy toppee mooy mbiri espionnage ak mbiri complot am na nag ay mbir yu garaaw te yéeme yu mu wax ci enquête ba yu ca bari mi ngi ci page 7 bu l'observateur